di similaire xeex ba day a ah. diggante Khalifa Sall ak nguur ga daal tàmbali na mar di tali termine yéene kaay ne mbalit mi nga xam ne nag kon dañu koo jël daal yóbbu ko ca ICG waaw Khalifa Sall day contre attaqué na mar di tali waaw waaw parce que kon bi na daal ab lettre di président de la république di Macky Sall ah waaw moom président day moo signé décret ba xam ne kon président signé na ko waaw moom la Khalifa nag yóbbu kon ca kanamu tribunal bële di cour di kon jël kon décret boo nga xam ne day violé kon article bu code des collectivités locales laa eh, yorinuk mbalit moomee waaw ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye jël joo Khalifa Sall day daa seenee raak ba ngay résister résistance raak moo am kon ci assemblée nationale gay sur quotidien jàppal bàyyil bi nga xam ne nag ni nañ ko daal ca groupe parlementaire libéral ba waaw Modou Diagne Fada day gañewaat na de gañewaat na de parce que opposition ba kat nag ne xeex kay moo am ca assemblée nationale ah. Ah, waaw ma ne la ay dëmbooj waaw nee na bennoo ci boppam kon dañoo violé règlement intérieur ba yéen kaay gi ne xam nga diggante opposition ba ca boppam ak bennoo waaw yow xamoo kan ngay gëm parce ku ca nekk nag yaa nga génnee kon sa leetar laa fe député day waaw dañ doon xeex ca assemblée nationale des marti Italie yaa i jaaxle la réew mi ko tijee ne ko dëgg la ay dëmboo ca boppam kon moo fëgg aw mbéj di Seydina a Mbooj kii di bëgg a sëli libération yéene kay ne Aïda Mbooj kay a ah, daa yóbbu ardo kii di bëgg a sëli mu waay waaw waaw da koo wàccee de ma ne la ni démb a ah, Aïda Mbooj daal naka bëgg a sëli daal di koy këmax bousculé ko daal di koy buux moom kay ndek bawol kii waaw Aïda Mbooj daal di koy ñamal droit tel mu waay Aïda Mbooj ci enquête yéene ne parce que sëli ci boppam kon daf maa agressé waaye réccu na ko de dootu ko defati dootoo ko defati Mbooj ne du ma fi nekk nag naan waay a ga seli du dëgg loolee amul ay dëmboo ci boppam laa lay wax ni dafa ñemee yëkkati loxoom naan dama koy dóor xalaatu ko te lii sax gàcce la yow ab responsable politique ngay wax loo xam ne nekkul dëgg day waaw ña xam ne ñoom ñoo ànd moom day placé na leen bu baax tribune yéene kaay ne waaye Awa Diop day waaw teranga bi nga xam ne nag moom la ko Modou Diagne Fada doon jox da ko koo delloo uh-huh. waaw waaw vice présidente ba la Awa Diop daal daa xamal Modou Diagne Fada ñu def ko Fatou Thiam député Awa Diop député ci tribune yéene kaay ne man ay poste ak yoo yée taxuma daw bay daanu tiitalu ma looloo taxoon nag ma sàkku kon ci Abdoulaye Wade ne ko bul ma boole ci liste député yi cay député yi cay koom-koom ji lee sur quotidien ne wàllum koom-koom joojee ah ñaar fukki réew ak juróom yi nga xam ne ko danoo gënoon dool ci àdduna bi day Sénégal ca la bokk FMI ko wax Ahmadou Ba nee na FMI waxu ko xabaar boobee amul mu waay waa FMI ci boppam day safuñu yàpp safuñu jën lëndamuñ leerul waaw waaw Ahmadou Ba ci grand place ne ma ne xibaar boobee laa ne amul FMI waxuñu ko Roger Nord bu FMI ah nee Sénégal daal nice good fine le Sénégal se porte bien ah waaw doing business bi Sénégal day. ma nga ca fukki réew yi nga xam ne daal kon ñu ngi def ay jéego ci wàllum koom-koom gi lee la populaire ne ko dëgg la libération yéene kaay ne Ahmadou Ba waaw xibaar bi nga xam ne kon nee nañ FMI moo wax tey teg Sénégal na ci ñaar fukki réew ak juróom yi nga xam ne kon ñoo gënoon dool ministre économie ak finance daal dina ko wéri nee na loolee amul birima ci tribune yéene kaay ne ma ne yaakaar tas na yaakaar tàggoon na dem na parce que yow lu ëpp ñetti atu yàlla suñu kilifa yi nga xam ne kon ñu bees lañ ñu fal ni la ñoom daal lañ ne mooy mooy nekk fi di werante rek di doole ci am kayit goo xam ne daal la mu bindal Sénégal neexul dégg seen werante ko mitti gii mais wane ne nag affaire bi doxul non affaire bi doxul moom demul de déedéet yow premier ministre bi ci boppam Mohamed nangu ne kayitu FMI googe am na ba ne waaye jarul nag ñu ne fi kon di xiin xiinee ka yéegali dënn ni ab gaynde teguñ ci sax fan ministre économie ak finance Ahmadou Ba daal di taf yëngal ak làmbatu cacophonie googu mais mooy wane ne kon ñi dëggantaan njaay nag dañoo lajj ba ni saay ci lu jëm ci kon ci wàllum politique koom-koom goo xam ne moom la ñu a def yéen gi ne ñoom nag la ñuy faral di wax naan gestion sobre ak vertueuse yori nu sakkanal sellal normalement kay loolee la mu war jur tey mooy ay tontu yoo xam ne kon ñu neex a dégg sax yu ra tax lool neex a dugg ci nopp ci kayit yi nga xam ne kon ñu ñu koy fëgg di rapport yi waaye na ni kon lii sori na lool bëgg-bëggu askan wi lee biri ma ci tribune yéen kaa ne déggoo leen ma de mais xam ni moom la ñuy tiitaroo ñoom ñi le plan Sénégal émergent émergent PSE PSE PSE googu mais daa demul ba léegi ni le jugul ba tey yënguwul loolee nag boo ca toftalee kon sabaru gi nga xam kon moom moo am ca assemblée nationale gële day wane ne rek yaakaar gi fi nekkoon ma ne la tas na yàkki kay fi ne yàkki waaye yaakaar kay dem na cay coow li am ca fonds de promotion économique gële dem si yàlla libération yi ne kay ne mbéygee EMC day waaw dañu koo jàpp loxo ca poos mardi tali ma ne la société wii nga xam kon moom la mbéygee mii jiite di EMC nangu nañ ne kon wàllu njuuj njaaj kon walum fro dañu ko don def ba ñom société bi ci bopam nak nangu nañoo ko rembourser wala bour di len top mar di itali bu ñu ko ci Thierno Seydou Nourou Sy mi nga xamni ni kon moom directeur général BND banque nationale développement économique waaw nga xamni mo remplacer FPE ca yàlla tay walum terrorisme gi le populaire ne la la gi nak ak ëttum terroriste go gée nekk ca bitim réew am ci ñet ñoo xamni kon tek nañ len loxo ci Ndakaaru njaay jël job ak ben imam ca le l'observateur ne imam ba ca Kaolack day imam Aliou ndawlay wuyo wuyoo enquête yéene kaay ne ñent nit kay lañu jàpp la ilaha illallah ñent nit Sénégal kay fi mu nekk nii ngànnaayu ba ca kaw waajal seen bopp bu baax a baax lanu def ma ne la imaam Alioune Badara Ndaw ca kaw la teg nañ ko loxo ñaari jigéen ca géejawaay teg nañ leen loxo benn soxna ca xaar yàlla gaye teg nañ ko loxo te bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yu jóge ci police bi waaw bu yeboo Sénégal def attention de ndax rëccu ñu laa lay wax nii ci wàllum terrorisme marti tali la ilaha illallah <laughs> alaaji li ma yéem mooy imaam lañ jàpp de ak ñetti jigéen ñaar ña géejawaay lañ dëkk moo tax duma ci débat dama naan la alaaji tëjal